mu moomee boppam ba léegi réewum Sénégal di xool ana ban yoon lay jaar ngir tëral yoon bi nga xam ne ni ku nekk dana ci gis boppam waaye gannaaw bu ñu tàmbalee doxal loole juróom benn fukki at ak ñeent ci tey ba tey ñu bëri jàpp ni yoon des na tëddee njaaxaanaay parce que dañu gis ni ñu bëree bëri bëri tey euh, amoon na ay rapport ay enquêtes yoo xam ne dañ leen a épinglé seen jëf euh, ñu waroon a wuyu si yoon wala ñu waroon leen déglu wala leen a daan wala war leen a bàyyi loolu yëpp amu ci tey. ngir ku nekk mën a gisaat boppam nu yoon di doxee ci biir réew mi njiitu réew bu ñu fal yees Bassirou Diomaye Faye nam amal ay waxtaan wi yaa ci diggante acteur yi yëpp. loolee di xalaat boo xam ne ni Serigne Thiam di jàngalekat ci daara ju kawe jooju di université Cheikh Anta bu Dakar. jàpp ni xalaat bu rafet la. dafa nekk bànqaas boo xam ne tey dafa nekk pilier société bi ku wax justice xam ne au delà de pouvoir exécutif législatif moom moo fa des te moom mooy arbitré. gannaaw ay coppite yi nga xam ne ni jot nañ koo amal boobu ba léegi ba tey lu ñuy xaar ci doxalinu yoon. am na lu bare luñ ci mën a jooyanti. mooy ñi nga xam ne tey dañ leen a jàpp te atteeguñ leen ñu téye leen si téye négandiku ci ay prise ci ay maison d'arrêt et de correction yi téye wu yàgg yàgg yàgg yàgg yoo xam ne dégluwuñ leen attewu leen te loolu rafetul day salfaañee seen i ak seen i yelleef ndax en matière criminelle l'instruction est illimitée te lu illimité nag moom dafa amul day gën a participer si longue détention yi am na ñoo xam ay ati ati at dañ leen a téye déglu leen bàyyi leen sans ndàmpaay sans dara loolu war nañ ko xoolaat ñu fexe ba nga xam ni suñu enquête ci affaire crime ñu utal ko limite ñu yàgg ko critiquer ñenn ñi jàpp ni ba tey daa am kumba am ndey ak kumba amul ndey ci nu yoon di doxee ci biir réew mi ba tax na yii waxtaan war naa jooyanti boobu la mbir ba ku nekk ci sénégalais yi mën koo wóoluwaat